Les ba lek neex lek lu neex mo ci gëna neex waaw waaw ak mborom makatre kenn dootu ko présenter ci tund bi yaa bëgg lek lu saf neex ma gaaw ma duggal la guuy gi pré pharmacie de ñaay ma sacc la nank duggal la mborom mak lo bëgg ci fa ci poudre cacao penton ton importé pomme de terre surgelée fromage gruyère jambon hot dog tablette chocolat am aussi tàndarma pour ñi bëgg a sen cornflakes pain arabe madeleine corn bœuf sauce tomate foie de bœuf saucisson ba poulet ginaar ak nenam loo bëgg ma jaay la yow mi ci bëgg te amoo temps grawul de jokkol rek ak gérant yi Yat Ma Njaay ak Ndey Soxna nga woo bu gaaw ci numéro yi 77 975 95 10 wala 78 182 02 99 ak shahu Ramadan bu ren bi ku ndogowul Mboro Market amoo koos région de Thiès département de Tivaouane arrondissement de Mewane commune bu Mboro ak li ko leen ma nopp ma ñëw ah mbokk yi TSC Darou Salam confection di ay xale yu dynamique man seeni liggéey ràññeeku lool ci wàllum confection blouse yow mi bëgg fësal sa liggéey sa entreprise wala sax sa école ak ci lu mu mënti door demal seeti waa TSC Darou Salam confection ñu defal la liggéey bu mucc ay Darou Salam confection di defar ay blouse ay maillots yu ànd ak kali sax ay Lacoste bësal sa liggéey ci bépp support de communication ay affichage ay tenue de travail confection industrielle lu jëm ci impression kenn mënu photocopie yu leer qualité yow mi bëgg a créer ay logo ngir sa entreprise moo xam ci support bu mu mënti doon lu ci mel ay bâche ay t-shirt DC Darou Salam confection amu ci moroom seen adresse benn la nekk ci quartier Diamaguène ci commune bu Diakarlo, station Total mën nga leen woo ci 77 557 45 68 77 193 21 48 ak Darou Salam confection seeni liggéey day ànd ak qualité te méngoog jamono. communication job et Frère. nek ci commune Bumboro Jakarlok école niani ah Moki. boro Mboro ak communication job et frères ko lol ci walum jaayum téléphone walum réparation décodage yow mi soxla ay télévision télévision de dernière génération And ak qualité demal seti wa communication job et frère. lepp li nga soxlo ci téléphone marque bo bëgg wala sax sa téléphone am ay jafe-jafe demal ñu défal la réparation ci anam bu mucc ay communication job et frère yamunu ci loolu dañuy jaay ay accessoires lu ci melni ay écouteurs ay chargeurs ay batteries ou feu waye tamit ay lampe led fenn rek nga ko communication Job et frère. jàkkaarloog école ñaani ci route nationale sorewul lol ak juma laser man nga jokkoo ak ci 78 522 25 82 wala ci 76 948 06 66 communication Job et frère. technologie bi ñepp doon wër ci Mboro ak xarit jëkkër ku am jom waaw moom sama doomu nday ma nga xam fu mu toll ak magam bi te wax du yomb dañu jaay baal moo ne dina wëli waaw sama doom nday may woo allo Youssef yi si loolu yaa ngi si jàmm yaa ngi préparé waaw pare nga ni. waaw maa ngi nii sax pare naa nii kay. ñëwagul. dama la waxoon def nga ko. si ñoo ñëw ñëwee fii dootuñu ko defati. kon kaani ko ba mu wex xat nag kaani gis sax poobar nag bu ma bàyyi benn poobar bineegar wax noonu suñ ko lekkee rek ku ne di sëy sëy ku ne fu xam jëm yow bul ba dara daqaar ak ba njëkk bul ba dara. ah moom day nag bëgg nag fi maafe waaye tuuti waaw baax na ñu fàtte dara ma sax dañu wëyu rek da nga xam ne moom bànni moo daal bu kaani bu kaani gi yomb waaw baax na nekk si jàmm si kanam mon amour waaw ñëwal ndox bi pare na ah ndaw yi bëri na. waaw ah macha allah bëgg naa ci lii de. gis nga. tey yow mi do mi doog mi doog a doog tey moom. Ah. yaa ci dàqale. ëpp na yaa ci dàqale. dafa leer. macha allah. waaw ah, kay de moom nu ñëwagul am. Ah. ah seegul. mais li ñëwagul. daa bi ma yokkute woon ak ba léegi maa ngi def sëy. naqari nga ñëw woo ko mais sànq ba léegi. Hmm. maa ngi leen di woo. kon naqari nga ñëw woo ma sonn mënu ma leen. di ma fontoo waaw léegi ñëw du yàgg. waaw xanaa léegi ñëw parce que woo naa ñëpp. ñoo naaj. waaw ñoo yàq ñëpp waxoon naa leen ko. ñëpp waxoon naa leen ko. ñu ngi gën a ñëw. parce que dama nekk weeru koor. teel a ñëw moom. teel a ñëw. salaamaaleykum. waaleykum salaam. ah li nga leen di def. sant yàlla li ngeen jàmm baax. alhamdulilah waaw tey bisimilah bisimilah. bisimilah bisimilah. bisimilah toogal. toogal toogal. bisimilah. alhamdulilah mais say gerte say say gerte. waaw taam naa say gerte say kan war a ñëwal lii. nawet ku nekk moom ma ko ñëwal. lii moo ñëwal lii. waaw waaw nawet ku nekk mel ni. waaw man de naan nga de. waaw gis nga de peut-être naan naa màtt. naan naa màtt naan naa màtt. incha allah bisimilah. bisimilah jërëjëf waaw. bii de moom mooy sama mooy sama numéro moom. waaw ci dugub nan la.

ñëpp xam na fi ab ah, pataas ya, eh, eh, ah, ah, rek. pataas. waaw loo ci def rek xaaral. xaaree ba mu yàq rek. muy noonu. ay lu baax da nga cee gaaw ah li ma jàpp. déwén naa ko mu ñeex rek. ah yii gën na. bisimilah. bisimilah. achi. yow gannaaw xanaa kaani sarama. sarama. ah ma yaakaar ma yaakaar tey sonn. yaa ngi fàttali sa yaa ngi fàttali sa guddi ga. lan ci def seen jëw tool mi wax. guddi gam guddi gam kay li ma ci daj. waaw boobu kër laa France mais dama daj keroog. Yeah. Maar dan ik heb het met je. Ah, Mau bocht me niet. Moet je even bakken, denk ik wel. Bocht mau niet. gue Mu ne bii foofu la ba Mau fii. ni may sant mu la nga ko prise da ngay am fii nga ko prise. pour ñu. sama guddi gi la Dina moo xew. man xanaa nawet guddi la tax ma tàng wala lu fa demee nii. ko. Trời lên mắt hãy nhận lên mắt lên mắt ờ, hãy ờ. nhận ờ. lên mắt Ê, dạ Hãy subscribe 한년 보내다니